dikkati na yéenay jàmbaar le soleil yéen daanaka lii la xëyee ni ki tey de ñaareelu place bu groupe A bi lii la Sénégal daal di jël ci mondial ba tribune yéen ne lan leen santoon ñoom kay goose dañ koo daal di matale sunu gayndey nag daal dinañuy qualifié tribune ko wax ci huitième de finale bu coupe du monde lan leen doon xaaree daanaka daal sunu gaynde matal nañ ko Sénégal nag war a dajeek Angleterre dibéer gii vingt heures askan wi nag daal di xaarandi lu doy waar waay classe politique di juróom-ñetti milliards yu tegal ñaari téeméeri millions le soleil yéen a kaay la ca ëpp solo daal mooy am na ndam daal di qualifié ci huitième de finale yu mondial yi loo xam ne yëfi ndaanaan la yéen kaay bi ne ma moom président Macky Sall day di leen félicité naan leen quel match quel joueur tey jii day sagal ngeen Sénégal waaye sagal ngeen Papa Bouba Diop la ca des kay moy bu leen gent waaye dem leen ngeen laal étoile yi bu ko jaree tribune yéen a kaay ne daanaka mbir yi mat na de direct news ne ni ki démb lañ ko daal di matal ñaar fukki gannaaw bi Sénégal daal dina qualifié ci huitième de finale bu mondial sunu gaynde yi niki démb nag daal di foqati qualification bi ci Équateur bi bu njëkk bu Kalidou i niki démb ci juróom-ñaari at yu mu am ci équipe nationale qualification boo xam ne dëgg-dëgg sunu gaynde yi fàttaleeku nañ ci Papa Bouba Diop ne niki démb ñaari at ci ginnaaw la génnoon àdduna président Macky Sall naan leen def ngeen lu rëy Aliou Cissé naan leen gis nañu beneen xar kanamu Sénégal gànn gay du bokk ca beneen match ba Sénégal ak Angleterre ñeenti fan ci weeru décembre lay doon l'info yéen a kaay ne kuy sénégalais fëgal sa dënn ñii ay jàmbaar lañu nee leen leen jàkk yi te bu leen leen piis ay gaynde dëgg ñu ngi nii démb day kañu daaneel l'info yéeni kaay ne ma fanweer ak ñaari jongante yoo xam ne ñoom Équateur amuñu defet dégguñu muñal l'info yéeni kaay ne ma dégg nañ ko ni ki démb de ndax dañoo taseel ay xale yu am jom waay le témoin mel ni ku naan maan Angleterre la ñu am da tiitu leen Aliou Cissé naan kon ñun ay gaynde lañu te daanaka mondial bi équipe yëpp yam di Quotidien la ëppoon solo daal sunu gaynde yi def nañ ko mooy dóor nañu Équateur qualifié l'enquête quotidien ay gaynde légende la ñu am Walf naan leen yaakaaru Sénégal tasu leen ko quotidien le quotidien naan dara na sunu gaynde daal dañuy song Angleterre ba mu neex liberation daal di ne ab pari la woon réussir nañ ko moo ci amoon solo l'observateur ne ab askan bu boole xolam la de ndam am ca la ca naqari di gànn gay du football beneen match ba leneen la ca naqari mooy ñii bu ñuy mu ñii di raas déem ca kaso bu mbuur yéen a ciy détenu dañ caa profitoo daal di rëcc l'indépendant yéen a kaay naan leen ko xeebul sa noos kenn dàqulaa noos sunu gaynde daal saa si tembe jox nañu réew mi teex teex may ree turbine yéen a kaay ne ma boobu réew mi ki doxalinam gerte gi nguurug Sénégal daal nee na mënta jar lu yées juróom fukk ak juróom yéene kaay bi média bi xamal ma ni it ni ki démb daal nañuy atte garde du corps yu sonko yi ci ñoom am na ñun ca tëj am ñaar ñoo xam ne daal dinañ leen di bàyyi waaye ñeneen ñoo xam ne it njortu nañ ne dañoo def mbir ma songu garde du corps yi tëj nañu leen booba tribune yéene kaay di ma xamal ne moom Mamadou Lamine Diallo day ma ngay aartu ma nga xam leen nag suuf si nga xam ne mi ngi bàyyeekoo ci hôpitaux yi ñi ngi seetaan waaye nguuru président Macky Sall ma ngi koy jaay vox populi ne ma loo waxati waxati boo gisee nen ni nen a ngi moom Ami Ndiaye ñibbi daal dinay tontu tontu tontu lu métti Omar Youm tontu ko pur tontu ko Ousmane Sonko tontu ko Khalifa Babacar Sall 24 heures yéene kaay mel ni ku naan maan jarta waxal de ndax Ami Ndiaye ñii bi moom mooy gàcceeg législature bi moom Ami Ndiaye ñii moom mooy race bu bees bu député bi nga xam ne nekku na ca assemblée nationale lu dul ruube moom Ami Ndiaye nag nee na président Macky Sall la yaakaar moom la teg fu kawe fu kenn teguwul waxtu woowu moom Serigne Moustapha Sy mi nga xam n ab kilifa la am ay taaliba yoo xam ne ci moom na président Macky Sall mooy yaakaaram ci kaw suuf kenn du ko laal waa Moustarchidine ne Serigne Moustapha Sène yaakaar la fii ak fee kenn du ko laal Ami Ndiaye ñii bi moo mais daal di attaqué ngëm-ngëmu jàmbur xas wax lu ñaaw sëriñub jàmbur yéene kaay bi ne ma yenn yi nag nurootul politique dafa mel ni nag dafa am leneen loo xam ne daf te rax lu dul wàllu politique yéene kaay bi mel ni ku naan maan waaye yàq na ko de ndax xas Serigne Moustapha fii Sénégal tollu yàq sa gémmiña turbine yéene kaay ne moo taxit fu ñuy toll nañuy fàttaliku kàddu Keba Mbaye yi nga xam ne daanaka artu woon na mujj dikkee ci wàllu politique saa si tembe nag daw ci wàllu koppar daw ci wàllu nguur daw ci wàllu ay place tax na nag saa si tembe lu waay neex wax mbaa mu def ko ci réewum Sénégal Kéba Mbaye tribune yéene kaay xamal ma ne nee woon na nag saa tembe nañu rëng-rëngee daw daw nag jëm ci àdduna goo xam ne nii daanaka wàllu éthique amu fa àdduna boo xam ne nii yii leen fi jàppee ay njiit muy xaalis di nguur di doole di place gars yi nag di roñ roñi daw ci yooyee nga xam ne mën na leen andil musiba maar day taali ndax nag fam leen jëmee lépp am na fa ba mu de tribune kaay ne ma Kéba Mbaye ma ngi ko waxoon atub tey jii nag lépp di dëggal ay kàddoom ndax nag ñu ngi soobu ci Sénégal goo xam ne daanaka wàllu am-am ak wàllu koppar daal la ñu jiital El Assane Sall teg ci naan dañu ne woon nul ne au-dessus de la loi loi boo xam ne nag daanaka ngelaw sax mën na koo këf dara ca dëgërul ñi nekk ci Sénégal goo xam ne nii dañuy jaay ne éthique baaxul jaay ñu ne moral baaxul nekk ci senegal goo xam ne lu dul combine ak maguy amu fa ku mën sa morom dumaal moo fi am jaay sa morom muusante moo fi am ci ñaawteef moo fi am injustice sociale moo fi am lii tax na nag ba boolu muñukaay yi fees na saa si tembe fu ñu koy daal di yebbi Al Hassan Sall ne ma à bon entendeur salut vox populi naan maan ña ngay jiiñ de benn parti démocratique sénégalais woor moom Ousmane Thiam ma cee indi ay gindi waa parti démocratique sénégalais doon xëccoog Seydou Diouf procuration moom Ousmane Thiam ne du Diouf laa jox sama procuration kebe meer teguñu ma fi ngir may wote contre député opposition laa waaye damay wote budget yi l'indépendant yéen kaay di ma xamal ne sergent niki démb daal dinañ koy rob ci sëgug Saint-Lazare yi waaye nag ab autopsie jaarul ci néewam yéene kaay ne moo taxit sargal nañ ko xam le ni ñaar fukki at mu nekk ci l'armée bi waaye nag benn faute professionnelle moom Fulbert Sambou defu ko direct news ne ma Assome Diatta ngay artu de xam le ni nag bu demee ba réewum Sénégal ay sandarma ak i militaire di fi réer ñuy for kenn ki naan gis nañu néewam mënuñoo def ci moom autopsie te ñoo ñooñee nga xam ni réer nañu di sandarma ak i militaire yoo xam ne ñoo waroon wuttu suñu kaaraange buñ demee ba ñoom ñoo ñee ñuy réer di feente duñu ñu feeñee bakkan tiit jot na asom jaata ne bañ leen di formé dañu ni leen képp kuy def ko du katu ñaawteef day lu xati leen ko ñoom ñoo ñee nag ñoo réer ba kenn ki faatu asom ne tey jii képp kuy senegale boo tiitul complice nga asom ne réeru militaire beeg gendarme bii dafa fekk si yeneen yoo xam ne am na ci réew mi te ànduk njàqare rax ci dolli ne ak lu mën a amit jéema a xar réewum senegal njaay ñaar erreur la libération yéene kaay ne ma daanee lal ma xamal la ni tubaab bii day dëkkam dafa faatoon soxnam màkk yee ko nag ne du faat waaye waa France Gueye mais dafa faat soxnaam daw làqatu si fii ci Sénégal ci sali yor faab corom di dund ak moom jàpp nañ ko te daañu ko delloo ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm merci beaucoup si revue de presse bi dina dellu si à 13h sur 89.7 Zik FM fii la ñuy daal bloc d'information la matinale merci encore une fois à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nos programmes en continu sur Zik FM et Saint TV. Bonne journée à tous.